et le Bubble Show l'actualité en continu gars actualité ñu fas yéene lui Aliou c'est mi wax ci équipe nationale du Sénégal ne dañoo war a dóor match bii di ñëw mais également kii di Kalidou Koulibaly ñëw wax ci li nga xam ne mooy donc nag li nga xam mooy tolof yu suñu défense bi am ak aussi taxawaay bi ñu war am contre ñii di waa Cameroun laata boobu nag mbokki Sénégalais yi fépp foo leen mënti nekk ah foo leen mënti aussi ah comme ni ma doon sensibiliser pour ngeen dem déposer mu jot seen carte électeur jot na na gars yi ngeen dem retirer ko képp koo xam déposé nga gars yi bul tayal yàggul fa nga demoon déposer dem fa ak récépissé bi ñu la joxoon nga daal récupérer sa carte électeur waajal élection yi ñëw suñu borom ne defal ñu jàpp ñu tabb ki nga xam ne moo jàpp ne moo gën ci ñun gën ci réewum Sénégal ki nga xam ne également nag mooy aussi kii di Karim Benzema Karim Benzema Benzema nag moom nag mi ngi ñaawlu li nga xam ne mooy xaw ca Palestine ba na moom daal di def benn bataaxal ne moom mi ngi daal jàppale ak aussi masawu coono ñi nga xam mooy waa Palestine kii nag di Frenkie de Jong moo daal di publier lii ngeen gis ko nag moom ak soxnaam si di wane rek ne soxnaam si fi mu ne ah, seen doom bi njëkk ah donc ki nga xam mooy donc Frenkie de Jong nga xam ne jamono ji si gaañu gaañu daal daal di nekk jëm ki nga xam ne Mario Balotelli le joueur italien moom nag tontu nag ki nga xam ne mooy donc kii di Zlatan Ibrahimovic nee nag Ibrahimovic ah, gagné li nga xam donc Ligue des champions ne man daal fi mu ne nii gagné la Ligue des champions bokkuma ak ñeneen ñi ba pare bind am Zlatan Ibrahimovic je suis Zlatan Ibrahimovic qui ah. ki nga xam aussi nag moom mooy donc Lamine Yamal bonne nouvelle pour ñi FC Barcelone mooy match bi di ñëw Lamine Yamal sera opérationnel madame bu ko Xavi bëggee aligné mën na ko parce que dina mën a di jouer ndax gaañu gaañoom bi daal demewut noonu te ñu ngi jàpp ne rek pour mën t'as euh, taxaw jouer match bi di ñëw pendant ce temps nag ah gannaaw bi nga xam ne trêve léegi mondiale jeex ñu war a tàmbali waat lii di Premier League bi ñi di waa Tottenham nag ak Posteco Soglu bi nga xam mom lañ tam mu nek entraîneur du mois de septembre ñi ngi waajal ñom fini ñoo nek premier du classement en Premier League top ci ñi xam donc Arsenal Manchester City pendant ce temps gis ngeen quoi les deux euh, Lyon hein le Lyon du Cameroun et le Lyon du Sénégal ci ci ak gamoy donc ki di euh, Rigobert Song Aliou ci nag nee na Rigobert Song lañ doon déggante chaque jour mais temps yi nak bañ amé match ba léegi déggantuwuñu muy tooñ touti di xawa mel ne kuy kaañoo kii di Rigobert mais Aliou Cissé nag nee na match bii di ñëw nag ñun dañoo war wane suñu bopp ndax bii passé am na yu bëri ñu wane yoo xam ne jekk na yemm na waaye li des mooy efficacité bi ay tout et que joueurs nag match bii di ñëw dafa nekk match yoo xam ne nag match boo xam ne nag jongante boo xam équipe la mu ne tamit diggante euh, ñuy dem ca CAN ba lu bëri des na ci donc amical bi du nekk forcément loo xam ne dina impacté ci xew euh, suñu diggante ñoom bu ñu demee ba war a daje Coupe d'Afrique Aliou Cissé mi nga xam ne gars yi fi ne nii ñi ngi xaar ëllëg lan war a daal di tekk ci jongante boo xam ne nag ñu bëri ñu ngi njortees rek ne euh, war naa mën a am ay coppite ci équipe bi ak kan kan mooy joué loolu nag eggaguñ ci waaye li wette woo daal mooy El Tactico nee na daal match suba dañ ko war daal di gagné

li nga xam mooy donc babo Show dinañ ci def ab analyse jébbal leen ko gars yi di moo nekkoon nak li nga xam mo ruusee ci conférence de presse bi Aliou Cissé doon def leneen la ci topp nag leen koy wasaare ci kanam kanam mais japp leen ne Aliou na match bi di ñew match ëllëg bi inshallah match bu ñu wara a gagné la Koulibaly aussi nee na match bu ñu wara a gagné la waye ndëgër lay bu baax la ñu war am jëm ci li nga xam mooy donc suñu défense bi Sénégal bo xam ne gars match bi ëllëg lay doon donc gannaaw bi nga xamee ne gars yi Sénégal bi passé dafa euh, ndërmeelu ci kanam li nga xam moy donc ñii di wa Algérie match ëllëg bi nak nekk match bo xam aussi dafa wara gëna andi euh, confiance parce que victoire la bo xam day baax ci confiance bi et surtout défense Sénégal boo xam ne jamono ji na gars yi mi ngi tagatémbe ki nga xam mooy donc Edouard Mendy bu fekkee ne Aliou Cissé da koy aligné waat il faudra que mu def ay preuve parce que fi mu ne nii nag gars yi am na ñu bëri ñu nekk ci ginnaawam mu yeneen garde yoo xam ne ngi wane seen bopp et que demain aussi il n'a pas droit à l'erreur Koulibaly ak Aliou Cissé ñoom nag wax nañ li nga xam mooy objectif bi demain gagner match bi am une défense solide wane équipe boo xam ne également équipe la boo xam ne mën na prétendre jëlaat couronne am parce que aussi loolu la et je pense que match de demain bi match la boo xam c'est un match pour qui sera bon pour la confiance gars yi nag li moo nekkoon information ñu bëggoon a jox c'est toujours